waaw am na yeneen mbébét ndax euh, duñ ci yem ndax euh, jàpp nañ ne bu ñu leen nee nañ leen bu ñu leen organiser ba nga xam ne nii dem nañ final quatre demi finales yi dinañ leen organiser ay tournois yoo xam ne nag c'est purement politique tournoi yooyu ndax jàpp nañ ne tey euh, ku ciy jàppale président de la république. da ngay wàcc ci terrain bi seet lan mooy bëgg-bëggu ndaw ñi nan mooy bëgg-bëggu jigéen ñi lan mooy bëgg-bëggu askan wi di ko président de la république di defee ñu jàppale leen ca côté boobu. ndax kenn ku ne gis na yoon wi nga xam ne dafa jógee Ndindi jëm Diourbel euh, gis nañ ne wax dëgg yàlla dafa métti lool lool lool lool te boobu ba léegi euh, bari na loolu sax tax na ba ndaw ñu ci bari dañoo xawoon a découragé ba tax na lépp loo leen doon woo dañ cee xaw a gàntal euh, ndax yoon woowu moo taxoon. ak yeneen ak yeneen waaye ñun de la nga xam ne man nañ ko ca ña ngi ko dox euh, te it fàtt xam nañ ne président de la république fàttewul yoon wi nga xam ne moo jóge ndindi jëm njaareem waa parenage bi aussi ñu ngi ci ñu ngi ciy dox ndax euh, c'était un peu difficile avec la jeunesse de ndindi waaye it euh, wax dëgg yàlla bi ñu ci wàccee ci terrain bi jàppale ci ndaw ñi jàpp nañ ne signature yi nga xam ne président de la république laajoon na ko au niveau de ndindi 80 pour cent yi àgg nañ ca tey loolu maa ngi koy sant ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk biir ndindi maa ngi koy gërëme ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk biir ndindi di leen ci sant bu baax tey duñ ci yam au niveau du département de Diourbel sama collègue euh, président yi nga xam ne ñi ngi fi euh, muy Kër gu muy euh, Touba dina dinañu descendre ci terrain bi comme nañ ko faraloon waxee ndax dañ ne au niveau de département de Diourbel cinquante mille signature la ñu laaj ñu ñun ndaw ji bu fekkee li ñuy wax mi ngi ci ñun war nañoo mën a yóg euh, passé fu ëpp cinquante mille signature mën nañoo dem ba cent mille signature opposition zéro signature daal moom laa bëgg a déclarer te it au niveau de Ndindi dinañ ko. waa ñi nekk APR boom problème amu ci euh, juste xanaa coalition bi te coalition bi wax dëgg yàlla ay at a ngi nii àndunu mais lii nga xam ne mooy parrainage bii nga xam ne moom lañu ñu jëm. Euh, divergence bi nag li ko waral loo ci bari ñun suñu diggante ak parti socialiste la. parti socialiste ñoom bi ñu demee élection euh, yàlla def na six voix lañ ñu rawee mais nit ki boo ko rawee six voix euh, looy def war nga ko ca xalaat ne euh, ku ku ko war a dox considération la waaye considération boobu amutoon wax dëgg yàlla mais élection yii c'est pas parti socialiste moo soxla c'est pas APR moo soxla président de la république moo soxla bi ñu toogee assemblée générale indi nañ six Euh, six six jeunes ñu euh, def nañ en commission de six jeunes ñoom ñu indi trois jeunes ñun ñu indi trois jeunes ñu dajale commission boobu bu ñu demee collect ba ñëw ñoom ñooñu ñoo war a dajaloo xool ba xam doublon amu ci bu ñu paree doog a yóbbu déposer au niveau départemental.